jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi lee Pape ñëw Niang daal di yëkkati ay kàddu daal di weddi li nga xam ne kon Cheikh Bara daal di na koy wax mu ni kon àndul benn yoon ci wax ji nga xam ni wax na ko ndax mu ni bi mu nekkee ci kaso ba nag moom seetiwu ko benn yoon xamul këram xamul sax soxnaam tey jii de kon mu taxaw di wax garde yi kon mën nañu rek daal di témoin maanaam rek daal di seede nag li muy wax ndax mu ni kon. ba mu génnee kasoog léegi moom Cheikh Bara gisu ko benn yoon mu ni loolee la ci mën a wax kon li muy wax dara nekkul ci dëgg leneen itam ñu daal di koy wax jëm ci magistrat yi Cheikh Tidiane Koulibaly Cheikh Ndiaye bu conseil constitutionnel kon mu ni ginnaaw li nga xam ni gis nañ ko ñu jàpp ni coup d'état constitutionnel kon mën na rek jaxase réew mi tey jile kon taxaw nañu rek ginnaaw lu doy waar li nga xam ni kon waroon na fi am ginnaaw procès bu Ousmane weesu nañu ko jëm itam ci ñi nga xam ne ger nañ leen ci wàllu magistrat bi ñenn itam ci dogal yi nga xam ne itam teg nañu ko ñu ne askan wi li ñu war a xam kay mooy xool mbir mi saytu ko bu baax a baax ginnaaw rek jël seen courage ngir mën a xeex lu ñu mel ba rekk am li ñu bëgg ndax tey ji li gis nañu ñu bare kon loru nañ ci ñu bare itam ñàkk nañ ci seen lépp te loolee kon mérité ko benn yoon ginnaaw li nga xam ni kon moom la rek yoon di tërale mu ni yoon lu bari file ci réewu Sénégal